secteur informel bi man nañ ni sax li ko gën a sonal euh, mooy euh, étranger yi nation nation yi ñoo gën bari ci informel mais ñi gën a sonal mooy étranger yi donc xëy na néew nañ ci benn côté bi mais bu ñu waxee informel ça veut dire que nation yi ñoo tax ñuy wax ne peut-être que euh, les internationaux yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw dugg ci secteur boobu malgré am na fu ñu waroon a jaar wala Euh, sunu sunu autorité yi am na côté boo xam ne war nañ ca protéger ba nga xam ne duñ dugg secteur informel parce que secteur informel tam euh, foog ñu comprendre mooy lan d'abord parce que am na foo xam boo xasee àgg rek waratoo nekk ci waratoo waratoo informel da nga war a formel euh, te ñu te gis ne secteur informel léegi boo xoolee li ko gën a yàq mooy étranger yi muy ñu koy wooyee contrat de déloyal Euh, en plus tamit li tax tamit mu doon lu xam ne lu xaw a jafe lu fi jafee jëlee la ndax partout dans le monde foo dem ci àdduna bi dañ fay fekk te ñun Sénégal ñi nga xam ne ci côté importation ñi gën a jëflanteel mooy Chine ak Dubaï te ñooñu ñañ fay jëflanteel dañoo informel moo tax bu ñu bëggee tëb tëb rek daan dañuy formaliser mbir yi dafay dis mais dañ koy organiser. jafe-jafe ci jàkkoonteel mooy actuellement nii. bon mën naa ci citer loo xam ne fi mu nekk nii Sénégalais yi ñu ngi koy dund surtout ñi nga xam ne dañu daan importer karo parce que gis nañ Chine waaye ñëw nañ ubbi nañ fi benn usine karo mais usine ubbiwuñ ko rek yam dañu nekk producteur fa nekk distributeur nga xam ne tey ñoom seen usine au lieu de kon ñu jaay commerçant pour commerçant bi jaayaat mais dañuy produire ba pare wëlbatikuwaat dugg ci marché bi di jaay di détail di def lépp beneen bi mooy euh, beneen bi li ñu gën a sonal mooy indien aussi ñi nga xam ne dañuy dem Inde fu mel ni Inde di fa importer ñooy buñ ñëwee dañuy dund problème boobu parce que dañuy wëlbatikuwaat seen fournisseur leen jaay bagage yi ñu toppaat ci seen ginnaaw te bu ñu dugal bagage boobu ñoom dañ ko dugal dugal ci dañ ko duñ ko formé dañ ko formalisé dañ ko dugal ci informel bu ñëwee ne quantité bi ñu ci dugal dafay bari ba nga xam ne sénégalais bi du mën a ak ñoom loolu noonu dafay rey commerce Sénégal manque organisation moo ko waral mais tamit euh, fépp foog lépp loo gis rek lu ma doon rek dafa am ñoo xam ne ñooy responsable di tey maanaam euh, ñun tey bu fekkee sénégalais nga nga bëggoon exporter benn produit boo xam ne dafay jóge Sénégal war ko dugal bitim réew da nga fa da nga ak ay jafe-jafe yoo xam ne dalay jaral sax da nga mën naa ko bàyyi. ba ilaa boo ko fa dugalee mën nañ sanctionné sax ba nangu bagage yi te li waraloon ñoom dañuy protéger seen ay doomu réew mais ñun fii dañoo gis ni euh, Sénégal dafa nekk bo réew moo xam ne. fu neex fu neex waay dugg fu neex waay jóge dugg lu neex waay indi te loolu dafa nekk sax dafa dem ba nekk danger ci Sénégal parce que ñun ñu jëflante ñoom xam nañ ne du ay nit ñoo xam ne ñu crédible lañ ñoo xam ne muy euh, mën nañ sax dugg ci réew mi dugal fi bagage boo xam ne buñ ko jëfandikoo mën nañoo lor parce que ñoom xaalis rek moo leen ñor mais tey ji bu fekkoon ne dañu protège doomu Sénégal ñu importer yenn produits yi kooku du fi indi produit bu bon parce que bu ko fi indee yaakaar naa bu fekkee ne produit bi dafa am danger mën na koo lor waaye mën naa lor ay mbokkam moo tax lépp dafa war a jar a kon loolu noonu liggéeyu état la état nañu jàppal nañu protéger comme ñoom ni ñuy protéger seen ay doomu réew seen réew